dama naan état bi li nga xamante ne def na ko communiquer ak askan wi jaarale ko ci nga xamante ne moo di ministre de l'intérieur lu am am solo la parce que yaakaar naa ne meurtre yi dafa demoon ba créer psychose ci li nga xamante ne moo di askanu Sénégal dem nañ instant bi ba sénégalais kenn ku nekk wóolootul sa morom donc ñoom da ciy baax également ñuy génn di dalal di dalal li nga xamante ne moo di euh, xelu askan wi mais balaa ñuy euh, ñëw rek ci li nga xamante ne moo di conséquences yi il faut que ñëw ñu ñëw ci causes yi parce que causes yi moo waral conséquence yi pour man euh, causes yi lenn dong la gis nga am na ci ñoo xam te ne Amina ñi ngi dox mais c'est des frustrés am na ñoo xam ne tey jii ñi ngi dox mais seen xol neexul soo se daf ko wax léegi Sénégal léegi ñëpp naqari deret pour un rien da ngay gis nit mbir da nga dégg nit ci mbedd mi sax xaw ko laal sax mu ne la xoolal ni nga may laale wala xoolal ni nga may et pour man loolu yëpp yu ci bëri am na ci loo xam ne lan moo ko indi mooy ñàkk gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko biir Sénégal parce que économiquement am na ci ñoo xamante ne ndax ba léegi ñu ngi bokk ci pays yi nga xamante ne ñoo gën a pauvre ñoo gën a endetté et pour man loolu li koy mën a dindi mooy jeunes yi ñu bañ a xeeb benn liggéey. parce que parfois da ngay gis euh, Sénégal koo ne benn jeune bu ne mën de liggéey naa am kii jàng naa ba pare def naa sama formation aw ma benn diplôme wala am naa diplôme mais mënuma liggéey. wala dañuy jël ay liggéey di ko xeeb te et pour man loolu buñ koy def à chaque fois rek dañuy bëgg a jote jote loo xam ne ñoom mënaguñ ko am bu loolu weesoo problème d'éducation dafay daal di samp et pour man éducation bi c'est très très important parce que dama koy faral di wax tey jii bu fekkante ne sa yar na la yar boo xam te ne wala éducation bu ba de base bu solide bu dëgër jox la na ko yu bëri yow du la fëq ay xam nga bu njëkk ba da nga doon gis par exemple bu fekkante ne doomu ngaa def na délit man juruma ko mais gis naa ko mu nekk ci délit man dama koy dóor te duma demandé sax avis nga xam te ne moo di yaay mais jamono ji kan nga sañ a dóor doomam ngaa la amoo fi tam parce que dala leer na boo ko dóoree soit dina la porter plainte soit mën na la bàyyi ba jur dara nga doog koo dóor et pour man yu bëri bëri yoo xam ne suñu maam ñu ngi ko doon utiliser te ñun ñu koy ñàkkal fayda wala di ko banaliser bokk na ci li nga xamante ne moo indi mbir moomu le éducation de base dafa baax ci nit baax goo xam ne xam nga tey jii bu fekkente ne am naa lu ma ragal man ci ngaa la ngaa la bu fa nekkul ala kulli xaal dama koy def mais bu fekkente ne tey jii man am naa lu ma jomb jombal sama bopp ngaala bu fa nekkee dama koy def ngaala bu fa nekkul dama koy def et pour man yooyu war nañ ko delloo siwaat parce que nekk na ay méthodes yoo xam te ne suñu maam yi dañ ko doon yaree et que jàlloon na taxoon na seen doom yi non seulement am nañ éducation mais am nañ sa mais am nañu mbir yoo xamante ne ni rus nañ def ko après seen waajur yi di ko dégg et pour man yooyu yëpp ñun ñun ñi nga xamante ne ñuy nouvelle génération gi dañ ko dañ ko ñàkk ci nouvelle génération bi da ngay gis tay jii kuy wax ak mat di ko jàll baat wala di jël yenn kàddu yi di ko teg ci kawam et pour man yooyu rek ñuy ñàkkal fayda mën na jur li nga xamante ne moo di tuuxi na bu loolu weesoo aussi soo se wax na ko muy am importance muy suñu frontières yi wax naa ko fii barki dem mën na suñu frontières yi moo moo raw rido may ga ku jot dugg ku jot génn et pour man ci moment bi nii nga xamante ne insécurité bi yokk na ci lañ war a profité nga xamante ne yu sew sewaan yooyu ñuy xeeb nga xam ne mën nañoo indil jéey ñu mën ko régler une bon fois pour toutes euh, bu loolu weesoo drogue bi. loolu aussi war nañ ci wax bu baax a baax a baax war nañ ci yokk sensibiliser ni nga xamante ne ñoo di jeunes yi parce que à chaque fois actes yi nga gis muy xew yëpp wala meurtre yi nga gis muy xew yëpp ngaa la am na ci yoo xam ne bu ñu la ko expliquer yow sax yow doo doo ko doo ko comprendre wala sax doo doo arriver pour expliquer expliquer ko parce que dafay extraordinaire da nga naan est-ce que kii ba muy def ñaawteef bi ànd na ak xelam wala est-ce que kii ba muy def conscient parce que ñu ci bëri ci ñoom ci lu ñàkk fayda lañ leen reyee ci loo xamante ni amul bopp amul geen xoolal ki nga xamante ne moom kee dafa ñëw ne ko dama laa nag kooku nekk ci bu mu sëy mënul nekk nga jël ko dóor ko ay mat ba mu nekk ci diggante dund ak dee xam nga tey boo ko expliqué ne danaan est-ce que ki def lii wér na drogue bi nga xam te ne dañ koy utiliser nañ ko moytu parce que loo xam te ne yow boo ci nekkee dangay ngay tàqali ko ak sa sago yaakaar naa ne mën nga tiim sax sa yaay def ko naka su dul noonu bu ñu la tiimee après bu ñu la boo gifee bu ñu la laajee nga ne est-ce man maa def lii donc yaakaar naa ne looy tàqali ak sa sago war nañ ko éviter bu baax a baax donc ñi nga xam te ne ñoo ji suñu ay euh, Euh, force de défense et de sécurité pour man côté boobu également euh, war nañ ci euh, bàyyi xel bu baax a baax a baax et puis ñuy xool gox yi nga xamante ne ñoo gën a dense wala gox yi nga xamante ne ñooy gën a am ay agression ñu fay placer li nga xamante ne moo di ay police de proximité Amina pour que véritablement mbir yu mel nii mu bañ fi amati. Mhm. Mhm. ami maa ngi gis kii commentaire lu am solo mhm. nee na parents yu bari dañuy jaawale yar ak yafal. da nga gis parent parent boo xamante ni tantôt danaan yar a la ñuy jàpp ni tere mooy nga ñàkk a xiif nga ñàkk a mar nga dem si école yu baax mais tantôt dañuy oublier li nga xamante ni moom moo di base bi. wax na dëgg kii wax na soo sax ma daf ko wax léegi gis nga éducation wala parents yu bëri ci ñi nga xamante ne ci ñi ma ko sañ a wax dañu démissionné am na ñoo xamante ne tey jii dañuy xëy suba ba jant so ñoom ñu ngi ut lu ñu am xooluñ seen doom ndax xëy na julli bu dee jullit la xooluñ seen doom ndax tey ji ay fréquentation baax na xooluñ seen doom fi muy dugg ak fi muy génn te loolu dañ koy ñàkkal fay mais loolu dafa nekk bi yoo xam te ne après dafay répercuté waat ci li nga xamante ne moo di éducation xale bi et man pour man loolu c' est très important c' est que dañoo war a génn di indi li nga xamante ne moo di njaboot gu lekk mais tamit euh, njaboot gi loo leen jox jox ñu lekk yaakaar naa tamit éducation bi c' est très mm-hmm. ñu koy bàyyi xel bu baax a baax a baax mm-hmm. Mm-hmm. Euh, honorable bilan baa ngi noonu nga gis ko mu nekk ab bilan macabre boo xamante ni nit moo koy def moroomu nitam ba jamono ji tiitaange daal di ñëw ci askan bi. waaw xam nga soxna Amina. Mhm. maa ngi lay nuyuwaat di nuyuwaat ñi seetaan yëpp. Mhm. ñëw ci fukki doomu aadama ak juróom-benn. waxuñ ne dañu accidenté leen. Mhm. bu ñu waxoon rek seize morts. ñu ne waaw fukki doomu aadama ak juróom-benn yi dee. yan condition lañ dee ñu ne ñaar lañ ci rey. fukk ak ñeent yi euh, juróom da ci lakk ñett euh, ci ci ci dañoo lab ñii dañoo accidenté waaye xam lan moo ci doy waar ki nga xam ne moom lañ dénk kaaraangeewu réew mi du waxantu le ministre de l'intérieur kooku la ñuy wooyee le plus informé des informés koo xam ne yow yaay informé président de la république yaakaar naa ni yow moom kooku moom doo waxantu caaxaan nga wax. kooku moo ne fukki doomu aadama ak juróom-benn la rey mm-hmm. ci lu mooy daanaka euh, euh, ñeent fukki fan euh, ak juróom jàpp juróom-benn fukki fan maanaam quarante cinq jours jàpp soixante jours mm-hmm. mu ne rey laa wax rey ay meurtre la ay nit ñu jam ñu dee ñi ñu yën leen brique ñu dee ñi ñu dóor leen ay marto ñu dee. ñi ñu agressé leen ñu dee ñi ñu fekk leen seen kër. ci diir bu gàtt ci diir bu gàtt jam leen ñu wax nañ fi nag barki Dembo Ndiaye ne dix huit millions de sénégalais voire même vingt fan ngay jëlee vingt millions de policiers. Mm-hmm. ñu ne xanaa danoo dem Burkina wala Gambie wala Mali. am fay takk der senegale bu ne Ahmed Aidara nga teg benn policier ci tam ñaari Amina yi ku ci ne am policier. ngaala am policier ñii laajte ngaale ngaale caméraman la mu ngi nii nee nañ kan mooy ngaale ci plateau bi soo se nga wut policier teg ci yotam sugu kazalika. équilibre boobu moom mënta ne. te policier yooyu ci vingt millions yi la ñu bokk. Sénégalais lañ di yoxe seen carte mm-hmm. bu ko defee nag même hôpitaux yi dañ naan nombre de population tel benn médecin nombre de population tel. dix médecins et cetera et cetera takk der yi munoo jël sénégalais bu ne nga jël takk der teg ca wetam waa léegi lan mooy mottali loolu benn journal bind tey moom évidence na ñàkkum xëy wi mhm. ak bëgg loo amul lu mu indi mhm. def lu loo loo warul def xeeb sa wërsëg rek sàkk ci wërsëgu jàmbur mhm. mooy sàcc ñu ne waat drogue